ndajaw mel nii muy ndajam orateur yi foo ko fekk daañu faral di yëkkati xeeti morso yi musique maanaam xeeti musique ak xeeti way ay dañ ko faral def ci biir xam ne du bokk ak wax yi ñuy wax dañ ci di boole daal ay xeeti morso yi musique ak xeeti way te it nañ tàmbalee woon bàkku réew ma muy hymne national an nashiid al watani moom lañ tàmbalee woon daje mi ba tey nag moom lañ koy àggalee ashooru al lajnatu comité ba al adabiyatu bi ko jug adab bu fii de aji jariñ la jiddan lool waxi bu danaa sopp xaflaatiha ay ndajeem kasiran lool ashma issu danaa foñ minal lësiina ci ña nga xam ne laa yu si noona duñu rafetal alqiraata jàng ga al arabiyata gi ko jug arab nee na comité bi toppatoo wàllu adab daal lu am am njariñ la xeet ndaje yi muy taxawal itam man lu ma neex la lu ma bëgg la lool lool ñi nga xam ne dañoo tàyyeel ba jéemu ñëw mën a liir arab nag moom xam bi ñu dee liir dañuy yàq duñ mën a liir ñooñu daal moom dañ may soof lool asma istitna fañ jooju mooy rek loo xam ne dalaa soof mu jàll si ci ak taw siyon la daa xoroo jinaa fa sunu génn ilal malxa bi jëm ca foofukaay ba fi saaxati ci waxtu wa alxaashirat wi aji fukkeel shahatu jàkkaarloo na maag ak daawata invitation ba allati ba nga xam ne xàllaqat xaa aj na ko jamxiyatu alxayaati almadrasiyati association bi ñu tuddee alxayaatu almadrasiya xalaa lawxatil ilaanaati ci tableau not ya am tableau boo xam ne ñu koy faral di wékk foofu ci école bi luñ bëgg a yëgle ko ay not bind ko ca ku dikk jàng ko tableau boobu moo tudd lawxatul ilaanaat wa bihaate ci moom invitation boobu tadduxon lay wooxe moom jamhiya bi ak tullaaba étudiants yi ila xudduuri ihda mubaarayaatiha jëm ci teewe lenn ci ay compétition wala lenn ci ay jonganteem alxataa bi yéetee ko jóg oratoire nee na ban génnee ca fa ñuy foye ci waxtu fukkeel muy dix heures dama xool tableau bi ñuy bind yëgle yi gis ca invitation boo xam ne jamhiyatul xayaatil madrasiya moo ko fa def di ci woo lenn ci étudiants yi bëgg ñu teewe si yenn jongante yi nga xam ne daañu koy def tam aju ci aju ci mbirum li nga jàngoon ci leçon boobu fil mawhidi ca rendez-vous ba almuayyan ba di bu ñu ràññeel kaanat nekk na jamaaxaatu talaamiisi mboolooy élèves ya tattajihu di jublu naxwal xaaxati ci wàllu salba bi faraxin ànd ak mbégte wa suróorin ak mbég ñoo yemoo wa ma in istaqarra saxut binaa ak nun aljuloosu jataay ba xataa daxal ba dugg xadratul mudiri kilifa gi directeur mu dugg alxaaxata salon ba yuraafiquhu dana àndaaleeg moom baadul asatisati lenn ci jàngalekat yi lenn ci professeurs yi fa waqaf naa te mu jóg taxaw loxu ngir ñoom ihtiraaman ngir ormal nee na rend yu bañ joxe woon naka mu jot rek élèves yi tàmbalee ñëw di dugg ci salle bi nga xam ci lañuy defee ndaje moomule te ñoom ñu dugg si ñu ànd ak mbégte naka ñu toog ba jekk rek directeur bi daal di ñëw ànd ak yenn professeurs yi dugg si naka muy dugg si nag ñun élèves ñu jóg taxaw ndax respecté ko moom directeur bi ak ñi mu àndal wama asifa jegewut maw xi dubb ti daa il xaflati rendiwub tàmbalik ndaje ma wala nga ne waxtu tàmbalik ndaje ma xataa waqafa ba taxaw at talaamiisu élèves ya wa anshadoo te ñu sadd jamihan mbir mi mboole seen an nashida im na ba alwataniya bay national wa ba'da dhalika gannaaw loolee intala yéeg na raisul jamhiyati président bu association bi al mimbara tribune ba wastahallate mu tàmbalee alxaflata ndaje ma bi shukri hadratil mudiri ci sant kilifa yi directeur wal asatisati ak professeur ya xalaa talbiyatihim seen wuyu daawatal jamhiyati wooteb association bi tuma shakara topp mu sant rifaaqahu ay camaraatam xalaa juhoodihim ci seeni coono al mahmudati yadiñu sant fi sabili taqaddumi ci yoonu avancé wan najaahi ak réussite muy pajuk aajo mbir mi tegu ci yoon wata mën naa te mudat lahum ñeel leen ku la xëyrin yépp yiw wa najaahin ak gépp pajuk aajo naka waxtu war a tàmbali ndaje mi jege si rek elew jóg taxaw daal di way bàkku réew mi gannaaw ba nag njiitul association bi moo daal di taxaw ci tribune bi tàmbali ndaje mi te lam ko tàmbalee mooy sant directeur bi ak professeur yi ànd ak moom ci ñëw gi ñëw wuy si seen woote bi mooy bëtiku nag sant ay moroomam ci coone ñu def ba mbir mi jëm kanam aw yoon ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla defal leen yiw te defal leen paju aajo waxindan tihaayihi fa ak noppeem min ilqaa'i kalimatihi ci sànni baatam boobee wuddiha tàggoof na ko bit tasfiixi ci tàccu kama stuqbila ni ki ñu teeroo bi zalika ci loolee alxatibu aji xutba ja al awalu ji aji jëkk man nga ne alxati alxatibu orateur ba jëkk waxoo moom ahadu talaamidati safina kenn la ci elew yi sunu classe bi fa suurirtu te bëggaleef ma jiddan lool li musaahamati rifaaq yi ngir bokkaale samay moroom fil jahdi ci coono ba alxataabi yi bay oratoire mahatullah bil aqsaami ànd ak étudiants yi classe ya alxuliya yi gën a kawe nee na bi kilifa association bi waxee kàddoom ba noppi dañ ko tàccu kësës ci moom itam nga xam ne moo njëkk a jël kàddu gannaawam te mooy orateur bu njëkk ba moom it naka noonu dañ ko teeru tàcc ko moom na nee na sax kenn la ci suñu élèves yi classe bi maanaam noo bokk benn classe moo bëgg loolu nag ndax ndegam classe bi ma nekk am na ci ñu ci bokk ñu taxaw temm ci lii ñu def te muy lu am am solo ah loolu sant naa ci nga xam ne sunu classe bi xëy na bu ëggul ci classe yu kawe itam daal am na ñu ci bokk ba noppi àndandoog étudiants yi nekk ci classe yu kawe yaa kawe di yëngatu ci mbir mi wa kam lu bare bari kaana nekkoon na ilqaa'uhu joxinu kàddoom nga baliixan di aj rafet ba dem ba ca dayo bay dayo wa kalimaatuhu baatame it nekkoon na waadixatan di aji leer wa nabaraatuhu ay yëkkatikuy kàddoom ñu wax nabaraat ay ton ni kàddu gi yëkkatikoo ci yenn baat yi wala ci yenn dog yi moom it nekkoon na muttasinatan di aji peesewu maanaam tegu ci yoon wu jub xocc wala xàq dëgg rekk aqul lay wax faqad bayada leeral na wujjooxanaa sunuy kanam amaama tullaabil madrasati ci kanam étudiants yi école ba suma aqibahoo topp topp ko alxatibu orateur ba azaani bi ñaareel ahadu tullaabi safi mi kenn ci étudiants yi classe ba ak saalis bi aj ñetteel ay limu ci namm safi shahadatul kafaati kalaasu kalaasu diplôme bu capacité shahadatul kafaa des na ko wax diplôme d'études secondaires dañ ko wax it diplôme de capacité fakaanate mu nekk rasinan di aji sérieux fi kalaam yi ca waxam ja naajixante aji aw yoon mu aji paju aajo ngan di aji at mi fi tafkiiri yi ci xalaatam nga tabixiyan tey ko jug nature maanaam ku jarul dara ci yoon wa fi xarakaati yi ci ay yëngatoom mimmaa ca la nga xam ne asaare jaqina ijaabana sunuk yéem wa dahshatana ak sunuk jaaxle ba anda zalik gannaaw loolee tabixaxoo topp na ko ahadu talamisi safi kenn ci élèves yi classe ba al awali ba jëkk safi shahadatil baccalauréat te mooy kalaasu diplôme baccalor fakaanate nekk xitaabuhu xitaabam ba maanaam discours am ba adabiyen di kojug adab baxtan bi aji sell lam afham dégguma alkasira lu bari minhu ci moom xëy an yi dara naka man sa faqtu tàccu naa la ñeel ko xindamaar aytu bu ma gisee man ñi nga xamee ne xum ñoom af xam ñoo gën a dégg min ñi ci man yu safiqoo na ñuy tàccoo nee na ki nga xam ne moo bokk suñu classe te jël fa kàddu ni nga xam ne moom la doon waxee ay waxam dafa rafet lool ba jéggi dayoo ay baatim na andi leer lool nu mu yëkkati kàddoom itam peesewu lool ca dëgg-dëgg mën naa ne ñun ñi bokk ak moom école moom waa jooju la mu def leeral na suñu kanam maanaam daal rusunu am na ndëgte ak jaloore damoo itam ku mel ni moom wax wax bu mel noonu ba mu noppee orateur ba nga xam ne moo ci sus di mu ñaareel bi dal cee topp moom daa bokk ci troisième classe te mooy classe bi ñu tuddee safu shahadul kafaa moom itam mu sérieux ci nam doon waxee aw yoon lool ci na mu xalaate jëdul dara ci na mu war a demee ci nam doon yëngutoo ba tax na naw nan ko lool te jaaxle ci nu mu mëne loolu gannaaw loolu nag kenn ci élèves yi classe bu njëkk bi te mooy classe bi nga xam ne mooy classe su diplôme baccalauréat kenn ci élèves yooyu moo jóg topp ci jël kàddu gi moom itam mu ne moom nag discours am yépp daa aju ci wàllu adab adab waxoon naa ne mooy way mbaa weesal lu ñu xoromal neexal ko ñuy jongante ba xam nag ku gën a rafetle mu ne moom nag waxam yépp dafa aju ci wàllu adab génn ko benn yoon mënu mu caa xam lu bari teewul nag bi ma gisee ñi nga xam ne ñoom yëpp xam-xam ñuy tàccu may tam rek ma tàccu ne ñoom wa hakasa niki nii walla yendu na alxotabaa u orateur ya yataaqaboona di awante alal minbari ca kaw tribune ba wa nahnu te nun nu safiqu dana nu tàccu lahum ñeel leen taaratan léeg-léeg wanata mën naa tani mébét an tabkoona an nakkoona nu nekk makaanahum ci seen place tawran ci ay jamono xattan tëxa ba noppi jamihul xutaba yi mboolem orateur ya minal kalaami ci wax ja ni mu waxee rek noonu la orateur yi maanaam waxkat yi doon tegaloo bu kee waxee kee topp ca kee topp ca bu ci kenn waxee lu mat a tàccu nu tàcc ko léeg-léeg itam kenn taxaw di wax nu mënatoo ne doon moom maanaam nu ñee ko ba bu nu sañoon di moom di ñëw ci noonu nag ba mujj ñi wax ñépp àggal xinda zalika fa loolee naxaba jóg na xadratul mudiri kilifa gi directeur wa chakarate mu sant raisa jamhiyati alxayaatil madrasiyati njiitul jamhiya boobu wa ahdaa jamhiyatil xayaatil madrasiyati maanaam raisa dañ ko daafal jamhiyatil hayati wa aada ajooju itam biñ ko atafee ci raista teewul ñu daafal ko jamhiyatil hayati dañ ko tudd doole moom jamhiyatil hayati te fekk na cosaan la moo doon raisa jamiyatil hayati al madrasiya wa ahdaa jamhiyatil hayatil madrasiya danga ko jàng ci alfiya luy tax ñu mën lu mel noonu sant na leen xalaa juhoodihim ci seeni coono wa hannaahum te mu ndokkeel leen wa waxadahum te mu dig leen bi annahoo ci naka moom sa yetta barraw xalsat naa coobarewu bi jawaisa ci ay prix ay neexal lil xutaba ñeel orateur ya al mujallina ña di way raw fil xaflati ca ndaje ma al muqbilati mi aji dëgmal si maanaam bi mbir mi jeexee kenn ku ne wax ba noppi directeur bi moo daal di jóg sant président jamhiya bi ak membre yi ci coono ñu def ak ni ñu sonne ba mbir mi sotti sant leen ci ndokkeel leen ci dig leen nag ne bu soobee yàlla ndaje mi ci topp waxkat yi nga xam ne ñoo rawoon ci ndaje mi bi àggee ci ndaje mee ci topp ci laa leen di jox seeni prix seeni neexal maanaam lay wane ne ñoom ñoo joŋ ñoo féete kaw buñ dajawaatee la leen koy jox darsu bi ci topp ashita faslu shita maanaam jamonoy sedd bi xuluulu faslu shita ñëwug jamonoy sedd bi ci lu waaxid yi ci aji benneel wala nga ne ci benn rek wala xishirin ak ñaar fukk min shahri kanuun al awal ci weeru décembre ñu waxee kanuunu taani li ci jublu janvier kanuun awal nag ba toppee awal ji mujjum loola ndax buñ ko waxee ñoom dañ cee jublu décembre weer yi mujj ci at mi yi tàmbalee kanuunu taani subaat azar muy wéy ba daanu si ci kaanul awal mu tolloog décembre xàll la wàcc maanaam xàll la agsi faslu shita yi faslu shita in xabaa jeex na faslul xariifi saison nawet bi bu décembre amee ñaar fukk ak benn ca bis boobee ca la faslu shita di tàmbali ndax ci ñaar fukk ya la jamono nawet bi di faslul xarif di jeex bu dee ca ñoom axadat tàmbali na at taqallubaatu walbatiku yi al jawwiyat yi ko jóg jaww taqsoo di wow maanaam di tar xalat tabixati ci nature bi arriyaaxu ngelaw yi taasifu danañu upp danañu riddi bi shiddatin ànd ak tar tu xattimu danañu dammte axzaanal ashjaari cari garab yi tu zamjiru danañu soow xadbaa mbir mu ñuy way mer alxuyuum xiin yi asaw daaw yi aji ñuul tu xatti danañu muur wajaxa samaay kanamuk asamaan si taxjubu danañu yiir danañu làq ashi xata shamsi ceeñeeri jant ba yow midu dana xooy albarxu melxat ga yaqsifu dana xaacu arraadu dënnu ga tan xamiru dana yol al amtaaru taw ya bi xasaaratin ànd akuk bari tasiilu dana yol assawaaq yi riisoo yi tajrufu danañu golli danañu gas al atribata suufiya yatta saaxatu dana rot al baradu taw yóor bi taxubbu dana upp al xawaasifu calmeer yi ak faljiit yi ko jóg nees muy galaas nee na bu dee ci ñoom fas du chita ni nga koy xàmmee day wuuteeg ni nga koy xamee fii ci nun ndax bu dee ci ñoom jaww ji day soppiku lool naqaree génne lool àll beeg asamaan si daal day naqaree xool naqaree génn ngelaw yi am doole yi dañuy tàmbalee ñëw nga gis ñu dem mu cari garab yi ngelaw li day xumb lool mel ne borom doole ju mer di xaaju bu dee ci ñoom da ngay gis xiin yi daj asamaan si nga xam ne jant bi doo ko gis benn yoon léeg-léeg mu génn bu dee fenkoo ak bu nekkee dig bëccëg ñooy moo doo gis lu bokk ci jant bi bu dee ci ñoom taw bi day bari lool ak melxat yeeg dënn yi nga gis taw bari yu tax suuf si daf am wal di wal di golli suuf si day taw sax bay taw yuur maanaam bay taw galaas dana di am sax ay calmeer yoo xam ne calmeer yi galaas lañ koy wax maanaam day def ngelaw lu bare bari ànd akub taw ànd ak wàcce ab nees ànd ak wàcce galaas bërëb yu bari ci àdduna bi nag ñooy mel noonu ci faslu chita waaye bu dee si nun moom day wuuteeg ñoom dana sedd rek nun bu buñ tolloo ci faslu chita danay sedd léeg-léeg boo sedd bi metti waaye doo ci gis nag taw yu koy nuru léeg-léeg sax nun nu am at moo xam ne mel ni mel weesu daa mel ne mustoon a sedd benn yoon ci biir at ma bañ tolloo ci weer yi war a sedd itam taxutoon mu sedd ashitaawu sedd bi nag fil jibaali ci montagne yi muy doj yi yekkoon dana nekk ashitaawu sedd bi xaasiyan di aji tar fil jibaali ca doj ya muy montagne ya yax tabiw dana làqu alxaraw yi yoona wilaasuwaay yi maanaam war dëkkee wilaas yi fi manasilihim ci seeni kër yejj tamit xoona danañu dajaloo xawlal mawqidi ci la wër taalukaay ba yatabaadaloona danañu joxlante azaharaati ay soirée wala ay weeye maanaam dañu ay loo dajaloo ci yooyu jamono di def di def ay soirée yakuloona danañu lekk mimmaa ci la nga xam ne ixtasanoohu dencoon nañ ko fii fasli sayfi ci jamonoy été yaxdiloona danañu roulage suqoofal buyooti xaddi kër ya plafond yi mooy xaddi kër ya alxadimat yi aji màggat yantadiroona danañu néggandiku awqaata sahwi waxtu yi wuri ga wuri mooy asamaan si set wecc yaxrujoona danañu génn ila saaxa di jëm ci place ba alhamati bi public muy place bi ñu pénc mi rek ñëpp sañ a dem yataxarradoona danañu soflu li ashihati shamsi ñeel ceeñeeri jant ba al mudd fi ati bay aji muggal bu dee ci montagne yi fi doj yi nekk muy xeer yi moom jamonoy sedd bi day metti lool ñu nekk foofa ca àll ba dañuy làqu ci biir seeni kër taal di jaaru daañu def nag ay ndaje ci guddi yi daje fenn def fa soirée bu dee ñoom nag jamono yooyu nga xam ne ñu fas lu sita duñ mën a génn di wuti ab dund ba dara lañ jotoon a fàggu ci jamono yi tàngaay wa rek moom la ñuy jëfandikoo dañuy dem ci seen xaddi kër yu yàgg yi kër yàgg yi xadd yi leen xaddoon faaw dañ koy roulage waat su ko defee daal sedd metti bi ak ni jaww ji naqaree génne day tax dañuy séentu rekk am bis mu bañ a mel noonu jant bi génn ba mu xaw a tàng ndax ñu mën a génn lum néew néew dem ca penc ma mën a am itam tàngaayu jant bi ndax sedd bi leen sonaloon ashitaaw nag faslu shitaa fil muduni ca wiil ya yàkkoon dana nekk ashitaaw sedd ba fil muduni ca wiil ya latifan di aji ñëwant yu saawilu dana jànkoonteeg annaasu nit ña amalahum seeni liggéey doona soxobat ci dudul benn jafeñ-jafeñ doona soxobatin yastamiloona danañu jëfandikoo almadafi a poyel ya poyel yi mooy nuggukaay ya maanaam tàngalukaay ya alkahraba iya tey ko ju courant baa nga ne sofaas ya yàq si doona danañu jublu duura cinéma këri cinéma yi tux yi dana dundal alxaa ilaatu famiya saharaatin ay suwaare mu uni satan yu aji wettalee mu uni satan yasdaadu dana dolliku ak isdihaamu buux buux looga fi turuxaati ca yoon ya tasdaadu dana dolliku xarakatul bayhi yëngutub njaay ma wa shiraay ak jënd ga yàkkoon dana nekk albaxru géej ga xaa ijan di aji jeqi ko saaxibante aji bari coow daa wax nag bu dee ci dëkk yu mag yi moom dëkki taax yu mag yee mag moom buñ tolloo jamonoy sedd bi dana metti waaye du mettee noonu ndax nit ñi daañu mën a génn liggéeyi bu baax a baax ndax dañuy am ay sofaas yoo xam ne courant bi moo koy sofe muy tàng ko defee sedd bi du mettee noonu ci ñoom du leen yàqal sax dem cinéma famille yi itam daañu faral def ñoom famille yi ay soirée yoo xam ne dañ cee wétt leen te daje ca sedd bi du tee nga gis nit ñi ñuy buux buuxloo ci yoon yi mel ne njaay meeg njënd mi dafa gën a yokku nga jamono nag géej gi moom day tàng lool te bari coow ashuhuru atadammaru danaa mer wala danaa naqari xol fi faslu shita ci faslu shita axshaad naa ragal bardaxoo seddam ba ashadida bay aji tar tuusaxi junii dana ma xatal am taaruhoo tawam ya wariyaaxuhoo ak ngelawam ya waxibu danaa sopp saharaatihi ay suwaareem ak tawilata yi aji yàgg afraxu danaa bég bi tasaaquti thalji ci wàcc-wàcceeg nees bi muy galaas gi atazallaqu danaa tarxiis àll ci kawam moom nees bi atarashaqu danaa jamante mooy danaa sànnente bii ci moom ma xarifaaq yi ànd ak samay camarade du muy samay moroom faslu chita daal moom li ma ci mën a wax mooy damay xatal ndax sedd bi day metti taw yeeg ngelaw yi bari bu ci amee lu may bëgg daal mooy xeeti soirée yi nga xam ne daañu ko cay def famille di ca daje ndax guddi gi day yàgg seen daje yàgg ñu daje daje yàgg yàgg te def soirée loolu daal neex na ma ca ak it nag bu nees bi dee wàcc muy galaas gi dama ciy bëgg damay daw ci kaw galaas gi sax di tarxiis ak di sànnente galaas gi maag samay moroom di jël glace gi di ko sànni samay moroom ñoom itam ñu ma koy sànni kay daal moo ci xawatane ci lu koy neexal mu ñëw ci at taw siyon maa lu màgg màgg ak saa taral na ayaama kaanuun fani kaanuun kaanuun nag bu dee bi nekk weer moom dafa am ñaari kaanuun kaanuunul awal mooy décembre kaanuunul taani mooy janvier mën naa am nag ñoom seen bopp ñu am fari ñu siiwee ayaam kaanuun wama lu màgg màgg ashadda taral na albarda sedd ba fiihaa ci ñoom fan yooyu innahaa naka ñoom fan yooyu tu dax dixu danañu tex texaan al jisma yaram wa wa tulaaxibu te ñi foxanteeg al insaana nit bi bardihaa ci seen sedd ba al xaarisi bi aji tar fatasuuqunaa te ñu nuy màng sawqan ni aaji kem mànguk ay wëllu ilal firaas ci jëme ci lal ba mooy dellu ci fatasuuqunaa aw tajma'unaa wala ñu nuy dajale li naftal ya ngir nu jaaroo binaaril kaanooni ci sawaraw furne al kaanoon di mujj moom ànd ak binaari furne la moom fan yooyu daal moom nee na ni sedd bi mettee doy na waar day mel ne day tex texaan sa yaram baatub daxa daxa cosaan la moo doon ñiramtal bi ne daxa daxa fulaanan mooy ramazahu fi ibtihi aw